waaw mais euh, daje bi mooy euh, dañoo war a waxtaan ci thème ñu koy waxee ci wolof indépendance justice ak état de droit euh, lii nag du guléet ñu koy ñu si wax parce que wax nañ si waxaat si moo tax day ñu bëri dañ naan mais pour pourquoi ngeen si wax di ci waxaat nañ si wax di si waxaat parce que suñu suñuy biir dañoo daje plusieurs fois gis ni suñu justice bi am na loo xam ni tamit bu fekkee mu ngi dox de manière générale am na loo xam ne da cee mu ngi sooxe te bi te gis nañu tamit am nañu ay proposition ay saafara yoo xam ne bu ñu ko defee suñ justice bi gën a dina gën a dëgër dina gën a dëgër te bi ñu ci war a am tam dina gën a mën a am loolu moo tax ñu ne xaaral ñu organiser euh, séminaire bi donc bu ñu koy organiser du pour du pour xalaataat encore lan la ñu war a def parce que jàpp nañ ñun li ñu war a def xam nañ ko ba pare parce que acteurs yi si nekk yëpp moo xam magistrat la moo xam avocat la moo xam notaire la ñëpp toog nañu waxtaan ba gis ni lii la ñu war a def pour justice bi gën a dëgër gën a am indépendance. donc atelier bi lu ko tax a jóg mooy fexe nag ba ñi nga xam ne ñoo war a jël décision yi pour que propositions yooyu ñu mun a am ñu fexe leen convaincre ba ñu def loolu parce que loolu mooy jàmm ñëpp justice moom bu dëgëree loolu moo gën si si ñun praticiens yi moo gën si ñi war a àtte moo gën tamit si état bi de manière générale donc intérêt a mais mais naka la ñu nekkee may tra bañ a wóolu justice yi tamit loolu loolu loolu nan nga ma ko mën a laajee. waaw dañ koy wóolu dañ koy wóolu nañ justice. mais mais comme mais mais dama ne. no bi xam nga xam nga xam man dama jàpp ni euh, nit moom ak lu mu mënta def justice bii du yàlla moo ko fa teg nit ñoo ko fa teg te nit dafa matul nit lu mu mënta def rek war nañ ko mën a améliorer moo xam fii la moo xam Amérique la foo foo dem débat bi day am même boo demoon tey pays yu gën a développé yoo xam ne am na seen justice débat bi itam fa nga koy fekkaat rek nit ki tout le temps da bëgg a loolu tamit def naa yéen da ngeen ñëpp dañu war a rafetlu bu fekkee acteurs dañoo toog laajuñu ay affaire matériel ñu ngi laaj lan mooy jëmale justice bi kanam loolu kay jàmm ñëpp la parce que justice bu demee kanam sa intérêt la yow mi ñuy atte suñu intérêt la ñun parce que ñun tamit intérêt tamit état la de manière générale parce que euh, image état bi day gën a baax parce que dañuy xam ni Sénégal kat boo fa demee am na benn justice boo xam ne dafa dafa mucc ayib donc loolu lañ koy defee donc moo tax damay insister ci loolu ni li ñuy jóg li ñuy def nii du pour suñu intérêt bopp parce que amul dara loo xam ne ci dugal suñu poche leen tey bu ñu nee léegi justice bi euh, dañuy def lu mel ni appel à candidature loolu dafa bokk ci suñu li ñuy laaj maanaam euh, post bu nekk poste responsabilité bu nekk balaa ñu koy joxe nañu def ay critères objectifs ñu def appel à candidature seet koo xam ni moo gën a xereñ gën a maandu gën a jub ñu teg ko fa. loolu intere ñëpp la loolu bu ñu ko fi defee jàpp nañ ne bokk na ci mesure boo xam ko fi defee kóolute bi dina gën a maag yokk ba pare ñi nekk ci biir tamit dañuy gën a sawar ci liggéey parce que dañuy xam ni fii ku ku na ngay gën a liggéey rek na ngay gën a amee responsabilité donc loolu dafa bokk ci vraiment. Euh, loo xam ni day jëmale justice bi kanam. dañuy dégg ñu bëri ci askan bi di wax ne dañuy wóolu wóolu ñu justice ci doxalinam ndax euh, procès yi ñu koy amalee wala ñu far ci ay yenn parti politique bu ñu leen jàppee tamit coow bi ci juddu ndax yéen jàpp ngeen ni loolu tamit euh, mooy waral ni ba ñuy wax ne justice bi doxul ci Sénégal. bon xam nga ko wóolu de justice moom da nga boo nee mun nga ne bu la neexee nga ne wóolu ko. keneen ne wóolu naa ko xam nga nattu nattukaay bi moo wute euh, man magistrat la chaque jour damay gis ni ay ay ay téeméer nit wala ay junni nit yoo xam ne ñu ngi ñëw tribunal ñu leen di atte ñenn ñi bu ñu leen attee sax dañuy kontaan ba naan daf ma appel donc bu fekkee nattukaay boobu nga xool mën nga ne justice bi am na ñu bëri dañ koy wóolu mais ci beneen fànn bi tamit euh, loolu tamit vraiment dañ ko war a nangu am na ñoo xam ni ci yenn ci yenn ci yenn façon procès yi seen dañuy am xel ñaar euh, seen xel day tey ci justice bi nu muy doxee. loolu nag man damay jàpp ni boo gisee justiciable di ko xoolal comme moom sénégalais la ngay sénégalais ni nga bëggee justice moom noonu la bëggee justice da ngay jéem a xool lu tax mu wax loolu. boo xamee lu tax mu wax loolu di nga mën a xam lan mooy solution bi débat bi foofu la war a doon débat bi nekkul nii nga ne ko noonu li nga sa xalaat du loolu parce que nit ku nekk am nga sa liberté xalaat. mais li tax nit ki taxaw ne justice bi si ma gis-gis doxul loolu la ñu la war a comprendre xool cause bi nag cause boobu nag du ko du nit ki. xam nga débat bi warul nekk débat de personne cause yi cause bi ay si ci doxalinu justice bi la ak ci yenn institutions yi dañuy boo xoolee yeneen pays nu ñu def ba avancé côté boobu ñun tamit loolu la ñuy def dañu nekkat pays yu mel ni yeneen pays yoo xam ne avancé nañu euh, def nañu ay réformes ba nga xam ne seen justice boo xam ni ñun problème yi ñu am xëy na amuñu ko ñun jàpp nañu su ñu defee loolu ñun tamit xëy na critique yi dina wàññeeku.